sport et musique buñ ko waxee nag xel yi day dem ci li nga xamante ne nii mooy wàllum union maanaam communion waa itam wàllum bëgg naka noonee wàllum jàppalante loolu nag buñ ko waxee rek rawatina ñu nekk ndox ndoxteel koor xel yi day dem si ñaari doomu aadama yoo xamante ne dañ koy fitnal muy Tafa ak ki nga xamante ne nii moo Alsaan ñooñ nag seen jëmm de représenté li nga xam ne mooy marmite du cœur mbokki téléspectateur 2STV yi ñoo ngi am mbégte ak kontaante di leen dalal seen fukk ak ñaareelu édition ci li nga xamante ne ni mooy Marmite mi Cœur ñu dalal ki nga xamante ne yaakaar naa ni ku gis kanam kanamam xam ni ku miin kër gi la di monsieur Abdou Karim Mbengue moom nag mu nekk directeur bi nga xam ne mooy wàllum communication waaye itam wàllum relation extérieure bi nga xamante ne ni moo di Orange tey nag ñu dalal ko fi ngir mu wax ci initiative bi nga xam ne Marmite du Cœur taxawal na ko waaye itamit ci ni nga xam ne ñoom la dëppoo ak jamono yémboo ak mas mi di coronavirus ak xamante ni autorités yi jël nañ si ay matuwaay matuwaay yooyu ñoom ñu dëppoo ko ak seen liggéey xam naa rek tuuti dañ koy dalal mu wax ci initiative bi nga xamante ne ni Alassane ak Tafa andi nañ ko ci Marmite du waa waaw jërëjëf ñi ngi euh, sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu amaat ren euh, fukkeeli édition ak ñaar bu Marmite du Cœur lëkkaloo ci ak suñu ay partenaires Moustapha ak Alassane ñu nekk euh, sax mën naa ko wax léegi ay sonateliens ngir partenariat bu yàgg. ñu ngi euh, euh, donc euh, effectivement lancé édition bi ak ñoom tey di ñaareelu édition boo xam ne dañ si indi ay innovation ay coppite comme ni nga ko waxee léegi ndax malheureusement ku ne gis na mbas bi fi rot si mu empêché ñu ñu amoon système traditionnel bu distribution repas yi mu daan am ni mu daan amee daaw comme ni ngeen ko gisee ñu indi si ay coppite nag yu am solo puisque ay kit nañu jël di ko distribuer di ko yóbbu si daara pour mën a respecter geste barrière yi. mu am nag beneen coppite ren bu ci am bu am solo muy euh, focus daara maanaam dañu identifier ay daara yoo xamante ne à travers le Sénégal dañ euh, dañ leen di euh, dimbali réfectionner leen loolu aussi mu nekk lu am solo parce que ku ne xam na. les daara yi aussi dañuy participer ci éducation xale yi te malheureusement ñu ci bari ci ñoom dañoo néew di doole moo tax aussi euh, suñu partenaires yi ñu leen ci féliciter ci loolu ñu am xalaat bu rafet boobu bi ñu ko waxee ñu daal di ko validé tout de suite pour que ñu xool yan daara nañuy def euh, boobu accompagnement ren nag ñu bëgg a am présence ci fukki région ak ñeent yëpp loolu aussi am na solo mi ngi wane ne Marmite du Cœur macha allah mi ngi màgg partenariat bi mi ngi màgg te defe naa ne léegi euh, li ñu war sax def mooy lancer appel à tous les mécènes à toutes les entreprises ci seen RSE ñu ñëw lëkkaloo ñun ñu def marmite du cœur à l'échelle nationale boo xamante ne impact bi euh, day gën a am solo. dañ koy amplifier ba population yi gën si gis seen i bopp. comme ni ngeen ko déggee ay ki nga xamante ne nii mooy directeur bi yor wàllum communication ak wàllum relation extérieure bu Sonatel ni mu ko waxee rek na ki nga xamante ne nii ñooy entreprise ak seen RSE ñu dugal seen loxo ci li nga xamante ne nii mooy Marmite du Cœur loolu appel la bu nga xamante ne euh, daan na koy lancé noonee mu daal di euh, joxe euh, top départ li nga xamante ne nii mooy Marmite du Cœur édition 2021 douzième édition itam. ku ñëw di jàppale jaar ngir yàlla rek a tax te soxla nañ ko lool lool lool lool kon ku leen jàppale rek ci kontaan rek di ñaan yàlla yéen itam li ngeen bëgg yàlla defal leen ko jërëjëf jërëjëf yàlla ci yàlla def barke jërëjëf sama xol sedd na yàlla na yàlla sedd seen xol barke yonante bi jërëjëf ñu ngi leen di remercier baax di leen sant di leen gërëm bon waaw ci li ngeen def ci mag di kër gi jërëjëf daal yàlla ñu yàlla may ñu fekk ko ay at at yu bëri may leen wér li ngeen ci séentu li ngeen ci bëgg yàlla na gën a yokk yàlla jàppale te defal leen jàmm ñu ngeen bëgg yal na leen ko yàlla defal ndax lii tamit lu baax la yal na ngeen yokku nag ba yëg ko ci darajaay Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa di leen bàyyi ak yàlla yàlla moo am seen fay yàlla na leen fay ci jëf na torop moom wax dëgg fa neex yàlla waaw indi ni moom rafet na lool kontaan naa ci lool ci barki ngir yàlla ak yi muy Sëriñ Tuubaa d'accord kontaan naa ci maa ngi leen di sant di gërëm yàlla gu seen fan yokk seen wéet yokk seen wërsëg ci barke yonent bi waaw kontaan naa lool yéen ñi ko indi sax sant naa leen bu baax a baax a baax a baax waaw sant naa leen bu baax الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون alam najalil arda mihada macha allah kontaan nañu seen ñëwen bi seen teewaay bi fii alhamdulilah gannaaw bi ñu sant yàlla julli si seen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di gërëm ñu leen di gërëm di leen wax jëf li ngeen di def yéen a ngi def tamit lu rafet parce jàppale nit baax na lool surtout nag si weeru koor jërë ngeen jëf yal na yàlla leen jërë ngeen jëf kontaan nañu yal na leen yàlla fay jërëjëf sant nañ leen gërëm nañ leen ah nañ ko dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim ci yàlla génn ak alhamdulilahi rabbil alamin may ñu tawfiq ak zaahir ak baatin yàlla may ñu sutura yéen nag li ngeen def lu baax la nit ki moom soo ko fekkee ab miskin nga jox ko loo xam ne mooy wàccuwaayu koor gi mu war ci mën a am lu ma ci xëwale boppam loolu moom lu am solo la ñu ngi leen sant di leen gërëm di taxaw seen teewaay defal nañ ko daaw fekk déwén kon ñu ñaan yàlla leen yàlla jàppale rek defal leen jàmm defal leen tawféex si barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di leen sant itam ci ji ngeen def ndax euh, yonent bi alayhi salaatu dafa wax ak moom ci hadiisul qudsi ne yow sama jaam bi su ma la defalee teraanga lu mu rëy rëy boo sant fa ma ko jaaree soo ma sant yàlla man du ma gis kon ñi ngi sant yàlla sant gi ñu koy jaar ci yéen tabarakallahu di ñaan yàlla itam li ngeen def yàlla na yàlla fay leen lu ko ëpp ngi leen di ñaanal yàlla lii ngeen di def te ñu sant leen ko yéen seen bopp ngeen ñu koy defal naan maam am nga di ma yëkkati naan ma am maam seexal ma benn doon ju suukar yal na seen bopp bi mel ni suukar si yal na seen bakkan bi mel ni pepp ceeb lu ngeen yootu yal na ngeen ko jot waa man mi docteur lu ñu bëgg ñoo ko xam yal na leen ko buur yàlla defal yal na lan yàlla yokk ba lii ngeen def ren bu déwénee ngeen def lu ko ëpp may leen war ko ànd ak fan mu gudd ak muy jorabet kontaan nañ ci yéen yal na yàlla kontaan ci def def leen ko dara lu dul ndax yàlla tax ngeen def ko ngeen mën ren yàlla ngeen ko mën ay déwéni déwéni déwén yàlla leen ko yàlla may barki barki Seydina Mohamed li ngeen ko def ndax weer bi rek yàlla na leen ko yàlla may yàlla boo leen ko ñàkk saa yu ngeen jógee rek yàlla ngeen am lu ko ëpp ngeen koy def. Euh, tey euh, ñu nekk fi nga xamante ne nii moo di Taïba mu démarré li nga xamante ne nii euh, moo di campagne bi. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna yëpp tey Marmite du Cœur dañoo delluwaat fii nga xamante ne mooy cité tey ba Taïba bokk ci cité yi nga xamante ne moo ñu cité yi ñu marqué la. boo gisee la ñuy dund xam na ñi soxla nañu ndimbal donc loolu moo doon tey sunu sunu sunu taxawaay fii waaye dañuy santaat sunu borom rek parce que. Marmite du Cœur moom di li ñaan yàlla mooy ñu dem ba benn instant boo xamante ne du am sax ku ñu jox mu lekk wala ku ñuy jox mu naan waaye suñu borom ñi la ko dogale donc di ko ci sant bu baax moom mi nga xamante ne moom moo ñu jàppale moo teg lii suñu suñu suñu suñu mbagg man ak Moustapha du coobare Moustapha du coobare du seen seen jàmbaar seen mën-mën moom moo tànn ay ñaar nitam teg projet bi seen loxo ñu nit moom it tànn tamit ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo leen di accompagner donc loolu dañ ci war a sant suñu borom bu baax a baax a baax tax tey boo gisee douze an douzième année la tey douzième année yoo xamante ni chaque année am particularité tey boo gisee tey ak mbas bi nu mu ñëwee ba changer procédure yi ñu ñu joxe changer façon yi ñuy joxe boo doon gis man mii koy ñëpp xam nañ ne euh, joxe ay ndogu nañu sa soow joxe ay ay ay ay ay ay ay ñam dañu sa soowoon di def tour Sénégal daaw amoon nañ ay contraintes yi nga xamante ni permettre ñu woon ñu génn ci dëkk bi waaye tamit permettre ñu woon tamit ñu def ay regroupement ñu fexe ñu ñu dem toog fii nga xamante ni ci région de Dakar la di joxe ay daara ay ceeb ak diwlin ak yooyu ndax ndimbal moom lépp lu mu mën a doon ak lépp lu mu mën a toll rek baax na ndax fi muy dem fi muy jëm am na solo donc tey boo gisee tamit ren ñu am ay contrainte ba léegi mënuñu togg ak yooyu waaye tey defe naa sax ci li ñu nekk nii sax defe naa moo gën a am solo ci fi muy jëm ndax saaku ceeb ak ak suukar ak yooyu nga xamante ne famille yi dañ koy soxla ku leen ko jox ku leen ko jox moo gën peut-être sax aaj moo gën moo gën sax peut-être benn tibb wala ñaari tibb bi ngay tibb ci ceeb bi donc loolu euh, suñu borom rek moo mooy organi organisation suñu borom rek dañ ko ciy sant bu baax a baax a baax di ko ci këram di sant tamit suñu ay nit yi nga xamante ne ñu ngi ñuy dimbale vraiment di ñu di ñu jàppale ay nit yoo xamante ne du ñu bugg sax parfois ñu tudd seen tur suñu am naa sama xarit bi tudd Sawdatu vraiment dafa def na kañot boo xamante ne wax dëgg yàlla jéggi dayoo ba ma annoncé euh, nu mu tolloon jéggi na dayoo waaye ay nit rek ñoo taxaw euh, du du du kanamu Moustapha wala kanamu alsan waaye li ci lu ñu nekk euh, ci allure bu ñu nekk ci mouvement bu ñu nekk ci ci ndimbalu ndimbalu doomu aadama yi ñu nekk donc ñu jël seen alal wala jël seen astuut di ci participer pour affaire yi gën a mën a saawan baawan donc dañ leen di remercier ñoom ñëpp képp nga xamante ne joxe na ci as astuutam wala joxe na ci ay kàddoom wala wala wax na ci waxu bu rafet. ñu ko ci remercier di sant waa Sénégal yëpp di leen masaw coono ci euh, mbas mi ñaan suñu borom euh, dindi ko fi euh, ci jàmm. ñuy profité ci opportunité bi ngeen ñu may di baalu àq Sénégal di leen baalu àq ci weeru shahru Ramadan mubarak mi nga xam ne moom la ñu dëgmal nga xam ne suñu borom def ci dëxëñ ay mbootam ci biir weeru koor ci la leelatul xadri ne di guddi gi gën ci guddi kon tey maanaam mbir lay doon bu excès képp kuy sénégalais képp kuy julli sax laay wax d'une manière générale war naa balu ak moromam ci loo xam ak loo xamul loo yëg ak loo yëgul loo tey ak loo teyul parce que doomu adama moom dafa baaxoo dafa baaxoo juum dafa baaxoo tooñ beneen bi ñuy ñëw mooy Alassane wax na ko léegi ci marmite du cœur euh, existence am muy 12 ans yi euh, ñuy développer une politique sociale lu tax mu am solo mooy Sénégal la ñu nekk ay sénégalais lañ mais ñi ànd ak ñun ci équipe bi yëpp ay sénégalais lañ dafa am lu ñuy woowe devoir ak obligation noonu nous avons l'obligation de d'initier des projets pareils nous avons l'obligation d'initier des projets pareils defal ko ñàkk koo defal suñu bopp kàddu gi mi ngi tënku ci ñaan suñu borom mu dimbali ñu ba ñu bañ a gis suñu bopp ci jëf ci yàlla la neex rek subhaanahu wa moom mi nga xamante ne lu sotti rek mbiram la mu sottil ko sottil Marmite du ñu ci ànd ak suñu partenaires. donc Alassane wax na ko tout de léegi muy Orange ça fait 12 ans d' accompagnement ans ñu ànd ak ñun ñu ciy ànd ak kii ren aussi la même chose ñu ñuy accompagner. Marmite du Cœur indi ren muy muy la muy une politique sociale boobu ma lay wax dafa décentraliser su ma ñëwee ci programme bi dama lay wax ne ren dogal nañu ne bu ñu defee ñetti fan c' est à dire tey ba Grand Dakar bu ñu xëyee dem Grand Yoff dem Tëngéej samedi incha allah dañuy dem Ziguinchor waaye defuñu ko Ziguinchor centre dañuy dem Goudomp. dinañ jaar Tanaaf dinañ jaarale ci yoon bi Diatakunda Sumakunda noonu lañ koy jàppee après def Kolda bu ñu paree Kolda dem Saara Basi Saara Basi Dingiraay Dingiraay Nemetaba def Vélingara Vélingara ñu wàccaat dem euh, Tamba euh, jaaraale Médina Wara Fula donc y a une politique parce que du lu baax rek Dakar ko yeeyoo mais fépp te ñun gars gisoon nañu bi ñuy togg dañ daan dem fu ne donc noonu la ñuy wàccee rallier encore le nord suñu borom dogal ñu tasawaa kilifa bu baax muy Thierno Sama Samu Rabbi ñu jaar maatam jaar Ourossogui di wàcc noonu noonu noonu lañ koy jàppee Dagana Richard Toll ba ñëw Dakar suñu yéenee yéeney Alsaan yéeney Moustapha yéeney équipe Marmite kër bi yëpp moo doon kër gu nañu fëgg ko Alsaan ñu na ko léegi yéene bi c'est pas ñuy continuer de di ko def yàlla nañu suñu borom dimbali ba fi ñu koy def di xaw a wàññeeku bés bu yàlla sàkk parce que kenn bëggul toog di xaar ndimbal egsi donc ñun comprendre nañ loolu moo tax ñu yokk ci beneen jeexital muy une politique sociale visant les daara ñu tuddee ko focus daara ajjuma bu nekk dañu fas yéene taxaw ci benn daara réhabilité ko léegi on ne touche pas aux grosses œuvres c'est-à-dire dinañ defaat peinture bi def menuiserie bi def maçon menuiserie métallique yaa ngi defar fenêtre yi de suite bu ñu ñëwee dañ ko ubbi ñu wane daara bi avant ni mu meloon ak daara bi ni mu melaat bi fa Marmite du Cœur jaaree donc ak ay partenaires donc loolu lu bees la. ci marmi du Cœur ren donc moom ñu ngi ko tuddee focus daara parce que tout le temps on essaie de d'innover on essaie de rajouter quelque chose pour mu gën a yaatu. Euh, mbokki téléspectateurs yi lii moo xamante ne moo xew fii nga xamante ne mooy Taïba ñu ànd ci ak euh, Marmite du Cœur te comme ñoom ñu ngi ko waxee rek li ñu bëgg rek mooy ëllëg ñu am ay Alassane yu bari ëllëg ñu am ay Moustapha yu yu bëree bari alors nag fii la ñuy yëm ak yéen ci seen premier numéro Marmite du Cœur di leen jox dig daje. ëllëg lay done dinañ dem Liberté 6 Arafat Grand Yoff foofu mooy emploi du temps bi nga xamante ne moom la ñuy andil ni ki ëllëg incha allah jaa ngeen jëf.